bismillahi rahmaani rahim sadaqallahu al-azim balaxa rasuluna nabi mustafa al-karim alana qaala rabbuna amana mushahidin allahumma arhamna bilqur'ani al-karim wanfa'na bil ayati wa zikri al-hakim waj'alhu lana hujjatan yawma ddin allahumma anfa'na bima sharata fihi min al-ayati wa zakkirna bima baqiya fihi min al-dhikr ما كان في تلاوته من شر أو نشاء أو تحريف أو تعقيب أو زيادة أو نقصان أو تأويل على خير ما أنسك أو تعجل عند تلاوته أو كسر أو سيخ بلسان أو وقوف بخير أو إدخال بخير إدخال أو زيادة بخير فاكتب منا على التمام والكمال المهزم من كل الحال وارزقنا فضل من قرهم ودين حقه مع الأعداء والقلب والشعير وهبنا به الخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم العرضة والكسلان وأمنا من عصاك قبل من سؤال منكر ونكير من أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النار ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسخر ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكمل بخير أبيان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ودلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة اللهم اجعله أنيسنا في بحثك ومصاحبنا في بحثك ومشباحنا بأمتك وضليلنا في الحيل ومنقذنا في الأرض في الفتنة وعاصمنا به من الزيخ والأهوال وكيل الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بشعادة آجلنا وحق بزيادة آمالنا وقرب بالعافية وقربنا وأسعنا واجعل إلى رحمتك مشير أموالنا وسدي العافية على سبلنا وهم العينا بشكر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك أجرفنا واعتقادنا وعن الوجوه والقش بلا رب والصيب بلا جنس اللهم بارك وذرياتي وسيد أنك على عديد ولأرواح أبائنا ومهاجنا ومشايخنا ولأرواح دين المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الخاتم والمسلم وربك المنازل amiin amiin ñu yeesalaat sant suñu borom bu baax a baax ci tawféexam ak ndimbalam yi nga xam ne baaxeeti nañu ko ci jataay bii muy tàmbalik liggéeyub màggal gi ci teewaayub ndawi sëriñ bi cheikh mouhamadul basiir euh, teewaaleel sëriñ mouhamadul xabaan mi kilifaam dab léegi ci ab liggéey mu ànd ak sëriñ Cheikh Abdoulahat Gaynde Fatma ak sëriñ Cheikh Baara ak bokk yi mu àndal yépp ñëwal Cheikh Mouhamadul Mountakha ci jataay bii di jataay bu am solo ndax ay jataay yu bari jiitu na ko euh, sëriñ bi mbooloo mi nga fi gis dajee na ñeenti alxamis ci gannaaw am na ca alximis yoo xam ne la tari la tari kaamil bi ba wàccee ko jege na téeméeri nit am na ca alximis yoo xam ne la jëmu ji téeméer ak fukk ak juróom-benn ñoo toog ci benn jataay tari fa kaamil bi ñooñee defe naa buñ dajee ñu ne leen wàccee leen ñu kaamil ci ñaari minute du jafe ñoo ko nose noonu waaye li fi teew mënoon nañ koo def ay yooni yoon loolu nag day fedd li rek man la kanil qur'aana tamlikan yaduum lu matagul fukki fan waxoon naa ko ci ab jataay boo xam ne ay ndaw a fa dajee xëy fa ak këyit gu weex ak xalimaa ki daa bind fa kaamil jébbali sëriñ bi ci guddi gi loolu defe naa matagul fukki fan kero biñ koy def nee naa leen lii day nuru na ne beneen dëkk bu dul bii ku ko fa jéemoon mu të te man ñeme naa ñu organiser ma ko ci dëkk bi ci ñeenti barab ci benn bis loolu nag kon li muy tegtale rek mooy sëriñ beeg alxuraan kon alhamdulilah mbooloo mi maase nañu ci ndigalal sëriñ bi ku ne xam na ni ca sëriñ ba ba ci ku fi mas a nekk ci ñi ko fi nekkal lépp lu ñuy def alxuraan a ci jiitu waaye ren jii nag mel na ne Cheikh Mouhamadul Muntaqa gën na koo soññeewaat gën koo feddliwaat loolu nag dongo yi dégg nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax euh, jànge nañ ko nu nekk ci daara yi ci barab yi waaye mbooloo mi sax ku nekk ku ko mën def nga ko ñi ëpp ku ko mënul def lu nga ko kon jataay bu ñu toog di fa tudd ab lim dañuy xam ne mooy lim ba ñu fa fekk waaye matul asaka ci lim yee ñu dajee dajeelut su dee jataay bii 8945 kaamil fekk gun na fii ñu toog 8945 xat mu yoo xam ne noppi na fekk gun nañu fii ji toog waaye mooy li ma wax ne mooy li ñu fi fekk rek waaye li ñu jàng alquran ci dëkk bi jàng ko ci réew mi jàng ko ci barabi Sëriñ Tuubaa yi loolu kenn xamul nu mu toll yàlla na suñ borom nangu lépp euh, dollil ca Sëriñ Tuubaa ak àndandoom yu baax ya ay leer ci fa ñu nekk te yokk ci fanu Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak mbooleem murit yi koy gunge yépp aw fan ak wér bañ gën a mën a liggéeyal sëñ Touba di sant bu baax e, di ñaan ñu ñaanal donga yi tamit lii di seen njiglaay ndax e, ren jii xat-xat yi tax ñu yeex a tàmbali tari bi waaye lu ëpp ñeenti téeméeri gone tari nañu ba mokkal téere bi xat-xati màggal gi nag tax na ñi ci seeni sahaada noppeegul nga war leen koo jox ci turu sëriñ bi eh, ñaar 216 la toll waaye li ci des lépp dana àgg ngeen jox leen ko insha allahu taala loolu yit ànd ak ay cant yoo xam ne kon gannaaw bu ñu ko jëmalee ci sëriñ daara yi nekk ci daara yi te taxawu donga yi bañ man lool yi ndax buñ delloo ca këyit dañ leen doon dégloo de am na ci gone yoo xam ne minal faatihati ba ca minal jinnati wan naas seenu këyit doo ca fekk benn bind ña leen doon déglu dañoo tëye kayit ba mu jeex ñu boole ko xalima nga delloo alxuraan yi wow koŋ yu set wecc ci ay gone yu tuuti kon sëriñ daara ya jonjoo liggéey booba ñu ngi leen cay sant bu baax a baax waaye di ñaanal gone ya nga xam ne it ñoom la ñu def ca ñoom loola ñu am tawféex yi nangu ko di ñaanal seeni wayjur di ñaanal ña leen ca doon gunge liggéey bopp bi mu tàmbalee am nay nit ñu baax ñoo xam ne ba ñu ko déggee rek lépp lu ca war ñoo leen ca taxawu ba luñ aajowoo ñu def ko moo xam muy ca añ ya ca ndékk ya ca lépp lu mën a doon ñi ko doon def si it ci volonté ci biir taw bi bi si alxamis ñu am ca lañ doon xuus di jaar ci biir ndox yi di ñëw waaye ñu xam ne liggéeyal sëriñ bi ci alxuraan moom amutum njëkk lu ca waay sonn jar na ko kon ñi ngi ñaan mbooleem koo xam ne def na ab jéego ci lool yi ba mu sotti ngeen ñaanal ko mu dajee ceeg tawfeexi suñ borom ak ndimbalam ba bu ëllëgee mu yëgub yokkute ci liggéey bii kon ñi ngi gën a sant bu baax a baax a baax a baax di wax rek ne alhamdulillah ni ñu ko daan defee liggéey bii tàmbali na te daa war a dem ba talaata bañ julli suba kon su jataay bi noppee ba kilifa yi dellu ci yeneen yitte yi am na organigramme bu ñu tëral boo xam ne juróom-benni waxtu yu nekk am na ay cellules yoo xam ne ñoom ñoo koy dundal muy continuer defe naa ba muy tàmbali na la ko Cheikh Mamadou Lamine waxe woon te nga wax ma ko mooy xam na ne donga yi seen pas-pas ci jàng alxuraan dinañ ko defee nu ne waaye su màggal gi ñëwee xat-xat yi ci kër yi dana tax nañ ko bëggee duñ ko mane kon buñ mënoon a am barab boo xam ne moom alxuraan ji continué rek te du taxaw lu dul waxtu julli mbaa xéewlu loolu nag kon incha allahu taala day wéy ci barab bii kon ñi ciy gën a soññee bu baax di ci gën a fàttali ñi nga xam ne ñoo yore loolu te war koo taxawu waxtu yu nekk ña ko war a dundal ñu wéyal ko bañ fanaane màggal ba julli suba ñu waat ci xatmu bi rek te door a mën a yeewikuwaat lu bokkut ak donga yi waaye biir réew mi ci boppam daa mel ne bi ko sëriñ bi waxee ñeen ñu nekk rek fañ ne njabootuk xaadi Amar Fall bu Pire seen juróom-ñaar fukki dëkk ñett yooyu yónnee nañ lu ëpp ñaar téeméeri kaamil ndar sëriñ Ousmane Sow ak daara ye yónnee nañ ma 686 kaamil nga xam ne daanaka kon réew mépp rek ñu ngi ci alquran ji di ko barkeeloo ci liggéeyub sëriñ bi Euh, daanaka tàntu Hizbut Tarqiyyah bii rek nga xam ne ci première safar ak léegi 2854 kaamil jàng nañ ko fi ci diggante bi kon alxuraan ji moom xanaa foo toll la ca ñëw nga wax ko rek waaye mënee su koo takk. ni ñu ko waxee rek ndigal la loo xam ne sëriñ bee ko joxe mu jëm ci bisam bu tedd bii nga xam ne sëriñ bi moom yiteem jépp moo doon boroomam. alxuraan ak xasiida yi nag doon ay sàllam yoo xam ne nii lu bari ci mbiram ca la ko teg ba léppam sax ni ko suñu xaale waxe alxuraan jii moom kenn mës dégg lu mel nii baa di ko gis mooy ndaw yu tari ab kaamil ci diggante bu gàtt waaye nag loolu du kiimaan ci sëriñ bi ndax sëriñ bi alxuraan yàlla moo ko ci jagleel loo xam ne nii mësula am te it dootul am loolu boo ko waxee ci mbindam laa ko teg xasida yi it mu doon ab liggéeyam boo xam ne nii moo leen sàkk te doxale ko diggamam ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak diggamam ak boroom ba lu bari mu am ko ci kon nag bisoom bu tedd bi buñ fiy taxawal yaar yooyu yi te ñu may saytuloo xasiida yi ci ndigalu du ba Bassir mi dama ci sant bu baax bi ci am mbégte mu rëy ndax loolu tawfeexi sëriñ bi la di ci sant yit ñi ko àndal ñëpp ndax ñëpp ko jox yitte ju kawe kawe bisub tay bii ba ñu màggal ba ca suba la ni ko suñ xaale waxee rek noonu lañ koy taxawoo ci xeeti njàngit yëpp moo xam njàngoom durus la wala njàngoom yëkkati ci benn benn wala njàngoom kuréel ginnaaw loolu nag ñi santaat Cheikh Amadou Bassir mii rek ci taxawaayam di ko ñaanal ci liggéey bii nga xamee ne da cee am ab cër ndax liggéeyu Sëriñ Tuubaa te ku ko tudd tudd Cheikh Abdoul Khadir tekki Sëriñ Tuubaa kon nag bu wëlbatikoo di ci taxaw taxawaay yu mel nii alhamdulilah rek lees eh, mën a wax waaye nag du du kiimaan ndax damay junj rek nit moom ci tënk bu gàtt rek Cheikh Amadou Moustapha ba muy wutu sëriñ bi ci njàmbaaram gu réy ga ak taxawaayam ba ñeent fukki at képp la te fii mu toll nag romb na foofu nit nag bu tollee foofu lépp lu ay maamam ak ak i ci taxawal rek bu dee jàmbaar war na ko mën a taxawal lay kiimaan mooy mu toll fii mu toll te mën mënta taxawal loola waaye taxawu ko loolu di kiimaan kon dañ koy ñaanal mu yàgg te wér te lépp dëppoog nga ngërëmal sëriñ bi yàlla sàmm ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyu ak kàddu yu siyaare kàddu yu cant ak ngërëm ñu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu Serigne Touba ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak jot di ko jëme ci mbokk yu yi fi teew. di taxawu liggéey bu mag bi muy njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida ni te lu ci ne sëriñ bi naka jekk ni ko suñ xaaj waxee ku fi ma sa nekkal suñ Tuubaa ku ne booy woote màggal gi moom nga ci jëkkee waaye ni mu ci soññaareel nag dafa ëppaat ndax dafa wax ne bu weeru duggee rek na ko ñëpp def yitte njàngum alxuraan moo tax it nit ñi gën leen cee fa bu gën cee def yitte loolu nag xam na ko bu baax njàngum xasida it loolu la ci wax ñi mën a yëkkati ak ñi man jàngum durus ndax ñaari sàll yooyu kat mooy sàlli sëriñ alxuraan alali sëriñ bi la mooy léppam itam lépp lu mu amee ci la ko bi nee na kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa nanju bihi dunyaa wa uxraa minal karbi waxaatit ne rajaw naa minal minal mawlaa bihi xayra matlabin wa fus naa bihi fii kulli daf'in wa fii jalbi isa ma tarawna al aaya fuus naa bi waxtafa ala xayrina min sirrihi jaar bi xubbi loolu sa xaxar naa bi aada kon alxuraan mooy lépp sëriñ bi moom gi moom alxuraan nag jataayu tey ji ndax lii ñu wax fi wax léegi ci kayit boobu ñu bind ci benn bis ci sëñ bi lañ ko jëkk dégge kon nag man tam likandiyaɗum jooju day wane ne suñ borom may na ko waaye nungu ko ndax tam likandiyaɗum ɗo ba faw de sax boo xoolee jotaay bii kañ bi wàcc ñaari mi teel a ko dégg kon fii lu ne danga ko fi dégg xeet xeet lu ne luy wane ne Sëñ Tuubaa moom lu ne waxtu ne nga ci gisaat la gën a yem di ko gëstu lu koy gën a firndeel ñeenti téeméeri gone ci lu matu ñetti semaine hmm. ñu tari alxuraan ci weeru màggal bi nga xam ne boo ko defoon juróom benn yoon kon boo yexee junni dee doon ci dëkk bi kon wanee na ne Sëriñ Tuubaa jëkk na ci xol yi ci alxuraan kon Sëriñ Xaadim ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi lay sant yaa ñu ngi ko seqal cant gi rek ci Serigne Mouhamadou Xabbaan mi nga xam ne mooy seen jëwriñ ci liggéey bi te di ji def taxawaay bu rafet te yàlla def ñoo waroon ànd teew fi waaye kilifaam woo ko mu ne moo fi teewal mu teew ko benn la ma teewaale ko ak njabootam kon suñu xaalis sëriñ bi ñu leen di sant di lay yóbbante cant ak ngërëm nag ci mboolem ñi nga seqal liggéey bi di siñ daara yi bàyyiwu ci kenn lam séentu woon ci yéen ba jox leen digal li at wu jot positif bi ak yitte ji ak sellal gi di gën a yokk kon mi ngi ñaan ci barke sëriñ bi ci yitte jure ji ngeen koy defal rawatina ngeen du ko def ci bis bu tedd bi yàlla na ne ko suñu Tuubaa nangu tam mboolem lu ngeen ci yéene wala aaju ju ngeen ci dàbbal rek yàlla na ko suñu Tuubaa nangu Serigne Moustapha ci yow lañuy ñuy jeexale yow itam Serigne baa ngi lay sant bu baax di la na ma la ko daa waxee at mu jot rek liggéey bi cër biñ ci am su pàggutee fu maam suñ ba sàmba ndax sëriñ Touba da ko féetale woon ci xaside yi yàlla def nga gimmi rek jug dëgmal xaside yi nekk ci bëgg ko lool am ci taxawaay. kon nag bu demee ba liggéey bi tàbbi ci biir loxo hmm. day gën dara suñu xel ci ne liggéey bi suñu Tuubaa nangu na ndax bu sëriñ bi masaane génne walla ñu sëlmat gee bu génnee ana masamba lay wax inna allaha maana ñu tàmbali moom la daa def loolu bari ci xasida yi féetaliñ ko ci kon nag boo wëlbati koo defaat ca taxawaay bii te at mu jot yaa ngi suñu xaar yi leen yéem bu at bu waxtu jotee ndigal da ngeen digg kenn du leen gisaat sax ba liggéey bi àgg te at mu jot leen ku gën a sellal gën koo taxawu ba mel ni ko sëñ bi kon nag ñu leen ñaanal si barke sëñ ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha ngeen yàgg koo taxawee lool te gën ci am dajeeg tawféex gën cee di dajeeg ndimbalu suñu borom waaye gën cee dajeeg ngërëmu sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu